nit ku nekk sa àdduna fii lay tàmbalee yaay ànd ak mbokk yi naan yaa latiif yaa latiif lépp ngir nga mucc mën na am nga mucc yaay mucc mën na am nga mucc yaay faatu mun naa am nga faatu yaay mucc mun naa am yéen ñëpp ngeen faatu yàlla dimbali la nga mucc mbokk yi kontaan di feetu ñu woo imaam ak mbokk ñu utal la tur ñu woo imaam ak utal la tur nga ñëw ci àdduna di am bànneex di am naqar nga ñëw ci àdduna di am di ñàkk di wér الليل مهما تالا فلا بد من طلوع الفجر guddi gi lu mu yàq-yàq lu nelaw yi neex-neex fajar dina jot wal umru mahma taala fala budda min duxulil at lu ñu bëri bëri lu ñu néew néew mbokk yi ñun ñëpp fii la mujj nekk ci ñun am na ku la jege woon lool te tey sori na la te xam nga fa mu nekk moom dootu la fekk si yow yaa koy fekk mbokk yi may laaj bëgg ku ma tontu diggante bi ñuy noddee ak li xam say nopp diggante bi ñu lay jullee ku ma mën a wax ñaata paa la ak ñaata temps la ndax diggante bi jar na ñëw ci àdduna topp àdduna ba waaw yàlla waxoon nga jëndee ko noonu ndax diggante bi jar na nga xëy fajar julli ne yàlla yow kase ne yow yaakaar ci yow laay wéeru nga génn sa kër rek contrat bi nga signé yàlla nga xotti ko mbokk yi mbokk yi ndax bàyyi génn na àdduna rek kër gi tasaaroo na xëccoog ndolo kër gi tasaaroo ay nit ñu bokk deret dem ba ku nekk di xoolee sa morom bëtu noonu ndax diggante bi jar na nga ne du ma am mucc mu jaral loolu nekk jollof nag ta tolo xam say ndax diggante bi jàmm suma wujju bi mu fi amee doom su amee doom na torox na dof wala na dee ndax diggante bi jàmm ay mbokk bee ci bureau bi kenn ci toog ci toog di nga mujj bi na dof mu ne la tippal tànk indil ma yëri bi dinaa saa dee waaw ah, ndax bi jar na nga lekk kees société nga dem ci bi mu jox la téere ne la di nelaw nga tëb ci armée bi kër nga nga

moom moo teen lu bëri sa nguur mi yàlla dañ ci sëriñ mu delloo ci yàlla mbokk yi ndax diggante bii yi ñu si dund héritage boobu lañu lañu Seydina Limaamu bàyyi ndax lii lañu Sëriñ Tuuba bàyyi ndax lii lañu mag ñu baax ñu bàyyi xam nga lu ma bëgg luy jot jot dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd. anak ak karai ciri tiré sur darah rusak d'alarme rusal Oh, oh, oh, oh.

Go, go!